gaynde gaa ngi nii bi nga waree bëre bëre nga ma ni CNG moo def règlement am waaye dangaa bëre ba dee nit ñi nag xam nga loolu xam boo amee victoire ñuy jallax-jallaxee ka ñammi ñammi waaye li nga war def def nga ko bala ko du maa ne may sa mi ci njob ma daaw ngéwér alaaj sama dugg naa waaye sa maam eh Cheikh Ibrahima Dumbaane sa maam addi waaye noo ca lekk mu def rek baas jaagi beeg jalax jalax ji nan bàyyi wax ji te xam ne champion la ku weddi demal ci rond central bi dama waa jaa ngi nii loxo bi dam ngay bëre ba sa loxo dam nga continuer bañ ko wax jug yaay champion champion doon na ko sa turandoo champion nga sa loxo mënoon naa damm ngay ngay jalax jalax def affaire jigéen yow doo fee kala ndaxaaka waaw doo fee doo juddu jéeri doo ma dantaan taxaw nga risque songu def nga li nga def ee eh, bala koddu maa ne may sa xëri mi ci njobb ak nga attaqué ko roofoog moom jalla xoog moom ah doo ragal de ba sa loxo nga muñ ko ay avertissement jeexal ko ah yow doo ragal juddu bu rey ndey ak baay fulaak fayda borom ku sa reeru baay doy doo tala xaaraani ba ba mop cheikh irim dumba nay sa maam addiya gooyaan loo ca lekk mu rees gay ne ca paacoli bi ku wet na dem ci rond central bi na dem ci digg géew bi moom raki paas doomi ndeyam toog nii bala ko dumaa ne maa yirim may sa bi ci job reetaanal ku wet na dugg ci biir coow bari bari gay ne doo seen morom